noonu lay nekke bu àddina tukkee doomu nit ki dina yebal ay malaakaam ñu jële ci nguuram lépp luy yóbbe nit bàkkaar ak ñiy def bàkkaar sànni leen ci safara foofa des na fa jooy te yeyu booba nag ñu jub ñi dinañu leer ni jant bi ci seen nguuru baay déglul bu baax yow mi am ay nopp Yeesu teg nguuru yàllaa ji kawe ji dafa mel ni alal ju nëbbu cib tool nit ku ko gis nëbbaat ko xolam sedd ba mu dem jaay li mu am lépp jënd tool ba te it nguuru yàllaa ji kawe ji dafa mel ni jaaykat buy wut per yu rafet am bés mu gis per buy jar gu réy mu dem nag jaay li mu am lépp jënd ko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 yuusufa simon ak yuda te ay rakkam yu jigéen ndax nekkuñu fi ak nun lii lépp nag fu mu ko jële kon ñu daldi koy xeeb noonu yeesu ne leen des na fay daal yonent waaye du ci réewam ak ci këram te yéesu defu fa kéemaan yu bari ndax seen ngëmadi